dafa xew moo téye réew mi fi mu ne nii waaye tey dañ ko fekk fi nga xamante ni moo di kër sëñ Baye Abdou Karim Mbacké tey soxna Bator ñëw fii nan la def ak soppe yi. waaw sama soppe si di leen rek di hmm. wax ni man kontaan naa ci ñoom ndax li ma bégloo ci ñoom mooy bëgg gi ak safoo gi rek ak woote gi ak yëgoo gi nee naa sëñ bi hmm. ndax sama soppe bu nekk defal nañ ma ci nag bu nekk teralee nañ ma ko bu dee may nañ ma bu dee or may nañ ma ko xaalis jox nañu ma ko ndax ñoom xam nañ man ni ma mel ci bis bi moo tax lu nekk tere leen nañ dama naan man dama jeg saay xool pisu yuñ man lii mën ma ko yóbbu kon awma seen seen fay yal na leen yàlla fay te li ngeen ma jox yëpp ngir jëmmi bés bi yal na leen ko suñu borom delloowaat waaye balaa maa tëj rek sama dernière question sëñ Mountakha joxe na ay kàddu yoo xam ne jub na avant màggal gi di ñëw ne soxna yi ak ñi nga xamante ne ñoo di góor yàlla yi dafa am benn tere bu ñu leen di bàyyiloo loolu ban kàddu nga si am en tant que artiste en tant que soppe. waaw comme ni ko waxee rek ndax nee naa ndigal moom jafe mm-hmm. ndax ndigal le wax nañ ko kon daanaka gis nga ne nit ñaa ngi koy jafe mm-hmm. te yàlla na continuer rek jàmm ak salaam di ko mm-hmm. ziar bu baax a baax. mais ñi nga xamante ne def nañ ko wala ñoo ko doon bëgg waaja def tey lan nga leen di wax ndax ñu bàyyi ko. ñu bëgg a def lan. ñi nga xamante ne dañuy ñëw Touba indi fi greffage wala ñi nga xamante ne dañuy def ay wee wala genre góor yi nga xamante ne dañuy watu dégradé tey bu amoon moo boo leen di wax kàddu conseil. waaw mbir mi tolluwaale rek. Mm-hmm. mbir mi rek. Mm-hmm. xam nga nit moom am na loo xam ne ci xol la nekk. nit ma nga koo gis mu correct lool lool lool lool lool. Mm. fekk na ne. xol ba la ca nekk leerul mbir mi tolluwaale rek nanu yàlla xiir rek ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci loo xam ne ni neex na ko ñu ci nekk rek mbir mi tolluwaale rek mais nan nga gisee sa mbokk artistes yi ngeen waa jaama jaama rek booba léegi yaa ngi gis ak man ñoom ñu ngi taxaw di ko di waxtaan ndax jàmm rek ñoom tamit dañoo bëgg sëñ bi lool sax mm. ñoom dañoo bëgg sëñ bi lool heure boo ñëwee leen si fekk ñoo bokk lu ñuy def amuñu xiiroo ñu ngaayoo ku ci gis sa morom yaa ngi koy bëgg sa foog ñun bokk ci lu ne ci ci art bi ñu nekk mooy ci théâtre bi ñu nekk damay wax noonu ñun ñëpp dañoo bëggante ñun boo ñu fekkee festival ñu toog danaan ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay mm. parce que aar noonu la demee mm. ndax ñu noonu la ñu tàggatee ñu nekk ci booba léegi ñu leen gis ñu ngi daje ak ñoom ñu ngi waxtaan ak ñoom kon jàmmale lañ seet. soxna Bator lu muy tàggoo. soxna mais balaa moo tàggoo lenn loo xamante laal la tey bu fekkoon dañ ko doon laaj ñuy wax ci loolu. waaye ngeen ma nag mais dama dama sama baat bi sax dafa dee. leen ma rek jéggal leen ma ko rek. di jëm Serigne leen ma ko rek. maa leen ko ñaan mais looy tàggoo. leen kontaane bu baax leen wax ne yàlla yàlla defal ñu jàmm ñu ñëpp suturaal yokku ñu ñëpp mm-hmm. ci barke màggal gi ñu nekk lu waaye man ren rek bu dewee ne yàlla na ko yàlla ful ba mu mën lu ëpp loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla may ñëpp jàmm nag may ñëpp salaam may ñi ñu wér gu yaram bu saawaan baawaan ñu nekk ci kaso yal na leen yàlla génne fa ñu nekk bañ delluwaat seen kër ñu nekk ci hôpital yi feebar yal na yàlla fëgg seen bopp yi bu delluwaat si kër seen kër incha allah gi door nañu bégale gaay waaw gi door nañu bégale a gaañi fagu leen safar gi door nañu begale waaw safar gi door nañu begale waaw mbégte mi na fës dëkk neex ñu tàmbale gaani fa mu waaw safar gi door naa ñu baal ma jégal naa la nangu gaani fa mu waaw safar gi door naa ñu ba mooy ama ma dem ba ak ma dem ba xaratu yow مسبت سامي ناصر لخدمتي مختاري علي سفر ويرو جنت لا غاني فمولين سفر جي دور نانيو بغالي جاينتي غاورال njëgam la moo jur sa jàmm jee gaani fomulé waaw dem gi door nañu bégale gaay waaw a gaañi fa bu leen safar gi door nañu bégale waaw ñu waaw mbégte mi na fës dëkk neex ñu tàmbale gaani fa mu leen waaw safar gi door na ñu bëggale baal ma jégal naa la nangu la ko jëm ci bisu bee gaani fa mu leen waaw safar gi door na ñu bëggale ale tarex ba mooy ama jëse sin at ma dem سامي ناصر لخدمة مختار علي سفر ويرو جنت لا غاني فمولين سفر جي دور نانيو بغل جاينت غاورل njëgam la moo jur sa jàmm jee gaani fomulé waaw safar gi door naan bëggale waaw Bonjour, salam Je suis Mouminatou, responsable force-vente de Luxury Home, votre showroom de référence en mobilier et décoration d'intérieur. Aujourd'hui, je suis très ravie de vous présenter notre showroom et l'ensemble des services que nous proposons à notre aimable clientèle. Chez qui reflète votre style et votre personnalité C'est pourquoi nous vous proposons une vaste sélection de meubles de maison et de bureaux, ainsi que des options de décoration d'intérieur qui vous ressemblent. Et bien sûr, c'est pas Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas juste à la vente. Nous accordons une importance capitale à notre service après-vente. de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette présentation de Luxury Home. Nous espérons vous accueillir bientôt dans nos showrooms où vous aurez à découvrir l'ensemble des mobiliers de luxe et les services exceptionnels que nous proposons. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour planifier une visite. À très bientôt chez Luxury Home. Customer satisfaction our priority.